asalaamaaleykum mbokk internet yi amati mbégte jàkkaarloog yéen ci chaîne chaîne le vrai journal TV xam ngeen tank rek ci suba ñu ngi leen doon wax marche bi nga xamni mom le collectif bobu ñuy wax aar suñu élection programmé won feulé ci Gédo Bourguiba waroon joggé Gédo dox jëm école normale niñ ko tuppe won nak moy marche silencieuse marche bo xamni du ñu yëkkati benn kàddu dañuy dox rek garder le silence pour wane seen naqar ci li nga xam ni moo xew ci réew mi rawatina li ñu reporté élection présidentielle waaye ci mujjanteel bi gis ngeen ni que préfet de Dakar daf ko aaye lañ ci doon njort nag yàlla def ci sutura ba amul amul benn coow bu ci parce que bi nga xamee ni préfet bi génn na bataaxalam daf ni leen aaye naa ndaje bi ndax dafay indi problème ci dem beeg dikk bi surtout xal woowu maanaam yoon bi jóge judo dem école normal léegi nag na ngeen ma proposer beneen itinéraire bu ko defee ñu xool ndax foofu itam marche dina fa mën a jàppandi ba waa aar suñu élection nangu nañ loolu nangu dogalu préfet ba jàpp ni dinañ ko jébbalaat beneen déclaration de manifestation boo xam ne jàppagum nañ ko samedi bii di ñëw 11 waaye nag loolu du tere ñu taxaw wax ci aaye yi ñuy aaye manifestation yi parce que nag nekk na loo xam ni bëri na lool. te dafa nekk loo xam ni constitution bi ci boppam moo ko may askan wi tey bu fekkee am nañ lu ñu bëgg jibal ci kàddu walla naqar gu ñu bëgg wone askan wi am na droit ci li constitution bi tëral dugal ab déclaration du sax autorisation déclaration la ñu wax yëgal préfet ni ko kat ba sàngam waxtu sàngam ci bërëb sàngam dañoo bëgg a def marche wala dañoo bëgg def sitin bu ko defee declaration bu ko préfet jëlee autoriser leen ñu jël woy takk der yi ñu encadrer ko manifestation bi am loolu la yoon wax waaye li ñu faral di nemmeeku mooy léegi euh, joxe ndogal ñu amal manifestation lu néew la li ñu gën a nemmeeku kay mooy aaye bi te aaye bi li ci ëpp li ñu koy layale moy trouble à l'ordre public manam mo xam muy marche mo xam rassemblement préfet limi tek ci loxo ñi nga xam ni ñoy laaj manifestation moy li ngeen bëgg def mën na indi trouble à l'ordre public té loolu itam batay yoon dafa am lu ci wax yoon dafa ni préfet bu ayé manifestation pour trouble à l'ordre public il faut que ñaar yi dajalo pour mon nekk benn ci ñoom sax bu amee te beneen bi amul waru koo aaye bi il faut que mu am risque réel de trouble à l'ordre public c'est-à-dire mu bir nit ñi ni que manifestation bii ngeen bëgg risque de trouble à l'ordre public maanaam mën na indi xët-xët ak jafe-jafe muy benn beneen bañ ca taftal te foog mu taftalu ci bii pour interdiction bi mën a am mooy ñu insuffisance de force de l'ordre pour encadrer manifestation bi maanaam bu fekkee am risque de trouble à l'ordre public ba noppi il faut que préfet bi ci boppam xam ne amul lu doy ci ay policiers ki gendarmes pour ñu encadrer ko mu toog koo interdire lii la yoon wax waaye li ñu nemmeeku mooy léegi interdiction yi wax dëgg yalla bari na dañuy xol li xew tay rek nga xamné ne suñu élection néwon na day manifestation ñu aaye ko layale ko nag ni day indi jafe-jafe ci dem beeg dikk bi waaye gis nañ ni que opposition bi ak ñiy bëgg manifestation place bi ñu gën a bëgg di dem mooy place de la nation muy fii ci obélisque booru Colobane waaye seetlu nañ ni saa yi buñ ko laajee rek mu indi ay jafe-jafe ci lañ fa jóge ni xaaral nag ñu sori sax biir Dakar.

té ñu ni place de l'indépendance kenn du fa manifester bobu mom lañ lay tégal bu féké laaj nga place de l'indépendance même bu féké ni amna na ndogal ku tukkee won ci cour de justice de la CEDEAO ni arrêté Ousmane Ngom bobu jaaduwul day salfaañe ak ak yelleefu ñi bëgg a manifester nañ ko dindi waye taxul ñu dindi ko wa bu féké nak bo laajee place de la nation ñu lànkal la ko nga ni xaaral ma dem fële ca banlieue ñu lànkal la ko nga ni déet bàyyil ma yem ci dig digal bi nekk di gi ba nga xam ne dinaa sori biir Dakar te duma gêner kenn ñu lànkal la ko place de l'indépendance moom matu sa xalaat waaye léegi fu nit di manifester li am ba des mooy interdiction yi mel ni tulleeg màlle dara waralu ko lu dul ragal opposition bi dajale mbooloo loolu dong la nag surtout nag bi nga xamee ni amoon na fi meeting gu reuy gogo ba léegi nit ñang ngi koy fàttaliku bi amoon fële ci Kër Massar nga xamne li fi amoon ci doomu adama yu fa daje kenn xamul ñu toll ci lim mu nek manifestation bu reuy reuy ci jamono Ousmane Sonko bi nga xamé ni mom na dem ak dikkam libre nekkul won kafa gis nañ ni itam ci jamono ba tay am na meeting bu reuy reuy itam bu amoon akapes dafa mel ni nag. dajale mbolo mu takku mom la ñi fi ne ragal té li tax ñu ragal ko du dara dudul day woné xeyna popularité cause yi nga xamni mom la opposition bi di défendre woné itam ñom xeyna na fi ñu tollu askan wi ci ñu xawa di diingat seen yorin wara ñu ñak ci ànd lolu moo tax ñu bañ manifestation yi di am dajale mbooloo di am surtout que nag bu amee image yi fépp lay dem ci àdduna te bu mbooloo mi takkoo ña ci bitim réew dañuy xam ni nag askanu senegal xëy na war na ginnaaw ñi nga xam ni ñoo leen di jiite loolu rek a waral aay yi du dara lu dul loolu bu ñu dellusee ba tey terrain ak APES gis ngeen ni jamono yële ci ginnaaw waa ex Pastef ak ñi ànd ak ñoom sàkk woon nañu ñu jox leen ko ñu def fa meeting d'investiture bu seen candidat Ousmane Sonko laata ñuy siiwal liste candidat yi waaye dañ koo lànk te ñett yi le préfet waxoon teg ko seen loxo pour aaye leen ko bi ci njëkk mooy entrave à la circulation maanaam foofu ngeen ko bëgg a defee ca Parcelles Assainies terrain ak APES boo leen ko defee dem beeg dikk bi da ngeen koy gàllankoor muy benn ñaareel bi risque de trouble à l'ordre public ñetteel bi risque d'infiltration maanaam préfet dafa jàppoon ni manifestation boobu ñu naroon a def fële ca ACAPES te dara tax koon jóg lu dul investir candidat Ousmane Sonko dafa am ñoo xam ni dinañ ci profalaati raxaale ci am yu ñu indi ci fitna moo tax mu aaye leen ko waaye li ñu jaaxal kay mooy daf ko aayeel waa Pastef ak ñi bokk ci ñoom ñu bëggoon investir Ousmane Sonko ñu teg ci ay bés ajjuma ba ca topp ñu mettre ACAPES à la disposition de Amadou Ba mu def fa meeting waaw loolu lu muy tekki donc mbir mi leer na nañ li nga xam ni kay moo fi am. mooy xëy na mbooloo mu ñuy dajale la Macky la ak nguuram bëggu te gis li tax nag bëgguñu ko gis du dara lu dul image bi muy joxe ci fi askan wi toll par rapport ak ñi nga xam ne ñoo leen di jiite ak won ginnaaw guñ leen won gaaw ak song itam bu ñu song xëy na cause yi nga xam ni moom la ku jëgg di défendre ba takku lool ci ab lim pour bu opposition bi wootee ñu fekke leen ci loolu rekk fi nekk léegi nag li ci des mooy comme waa aar suñu élection am na mat gune ne bu toll ni bi nga xamee ni préfet bi aaye na leen ne leen sàkkul sàkkul euh, indi leen beneen itinéraire bu ko defee ñu état ji ko am nañ mat ñoom ba ni fekk nañu préfet ci loolu que dinañ dugalaat beneen déclaration de manifestation ca beneen lieu bu ko defee nag ñu xool fan la wànnante di mu jëg bëtam ak nan la préfet di def ak ñoom parce que nag kenn mënul dëkk rek ci risque de trouble à l'ordre public entrave à la circulation wala risque d'infiltration ba lépp loo xam ni war nañ ko def ci yu mel noonu manifestation wala rassemblement ñu aaye ko xam ngeen ni barki dem boo njaay sax am na benn bataaxal L'Union union européenne le gouvernement Sénégal li les ak lu respecter les libertés fondamentales te liberté fondamentale le droit de manifester mi qui est te manifestation buñ fi a amul benn ciow bu ci au contraire mbooloo mi a ñew luñu takku takku du am de problème kàddu yi ñu bëgg jibal ñu ko bëgg a jibal dinañ ko jibal bu ñu paree tas mbooloo mi ñëpp dem am na ci sax ñu ci teg que souvent fi ñuy rassembler bala ñoo dem dañuy ramasser lépp lu fay mbalit defar place bi comme ni mu meloon soo ko dem seen yoon ñu mel noonu nag bu ñu laajee autorisation pour dem ci manifestation war ngeen koo mën a nangu bu fekkee ni rek li tax a jóg mooy sàmm àq ak yelleef surtout nag yelleef boo xam dafa nekk ci constitution bi te yoon may leen ko lii mbokk lii lañ leen indiloon tey di leen jox di daje fii ak suba parce que xam ngeen ni nag information bi dafay évoluer lu gaaw a gaaw sax légui bu ko défé yeneen xew-xew yi nga xam xew ci réew mi nañ ñu ñaan rek nak mu doon xew-xewu jàmm ak lu xëttu xëccoo yi bari bari na doon ci jàmm rek ak ci lu tegu ci yoon bu ko defee ñu dellu siwaat ci ak yéen wasalaam